auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24 actu fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te di leen jaajëfal ci topp gii ngeen ñi topp ci waxi sëriñ Touba ñoo dellusiwaan ak yéen ci waxi sëriñ Touba yi am na kilifa ak séeréer gu mës a jébbalu ci sëriñ Touba xaadalahu laahu maxtaara mu laaj ko noo tudd mu ne ko daawuda sëriñ bi ne ko danga am doom ju tudd is suleymaana te su mënee dox du la fekk jamono am na ku ma sa wax sëriñ tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu ne ko soxnaam daa am doom fekk sëriñ bi yor ab kaamil di jàng mu ne ko lu mu am mu ne ko jigéen sëriñ bi ne ko nañu ko tudde yaasiin am nañu joxoon sëriñ tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu seen kaamil mu ne ñii fa ñu yaroo ba mel nii saytaane xamu ko nañu fa yóbbu kii te bu ñu ko dóor te booba daa am benn donga boo xam ne dafa nekk ci sëriñ bi sëriñ bi daal di leen di wax ne nañu fa yóbbu kii te bu ko dóor am na naar bu tuddoon muxtaar wul bulul ab jàngalekatub xam-xam la woon bu mag ca gànnaar baayam da ko féetale woon ak sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaar lahu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 naar booba nee na sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahum bu daan wax arab du ci am benn coona day wax waxin bu gaaw te yomb ko lool kon mbokk yi ñu topp ci seen internet bi ci 24 actu fii la ñu yem ak ci waxi sëriñ Tuuba di leen wax ne bu leen fàtte ne di ci suñu site internet bi di 24 actu mu ngi leen di jox dig daje wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu